alaaj ab doy wax lii mu wax ndeysaan mus xaysal wa mut kabadan ndeysaan doo dund dund gu neex te daa ci boole xajal ndeysaan se aaja abdul aziz maari neena yaa mutkiral qawmi mus xaysal wa mut kabadan doo dund dund gu neex te daa ci boole xajal boo bukunta limaamu seexu cene ba nga ciy wax way di mer bu ñu nee kii man tijaan laa ngay murit daal di mer kii ne man murit laa ngay tiijaan daal di mer di diingat ak wax mag mag ñi lu bon ak lu ñaaw ak nee na xam nga lu xew du dund dund gu neex te dinga ciy boole xajal xajal xam nga mooy lan mooy gàcce daa ci boole xajal kii wax ne Tuubaa Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin tawarul wallaay kooko xamul. da ngaa xamul rek diggante El Hadj Malick ak Cheikhul Khadim. Seydi El Hadj Abdoulaye Sy Malick nee na ko wax yéen ñi xam. ah El Hadj yu fay waxalak moom. mu noppi loolu moo di li mu xam ni fadlal Ali moom ci loxoom la newul. mu xam ni ngëneelu yàlla newul ci loxoom. na wax ba dee loolu muy bañ yàlla def na ko jéeg. saxaar si départ jëm Touba nga ni du fi amee moo jëm Tiwaawan nga ni du fi amee. ndax yàlla def na la muy def xabla zaa ca azal. billaahi. baayu soxna umu xayri dabaax nee sal aajaat lay si Malick nee na yow doo jullit. billaahi. doo ko xam loo fi doon ba di wax. soo bàyyiwul lii nga ne. yàllaay. ki lay toroxal ni tuubaak tiwaawan ak kan ñaseen ak canaba kazaaka laayeen wa jaasaan kum ci westara fekkonu sëriñ si danoo da nuuru sumande damay faajil ni leen yal na buur yàlla dolli ngërëm xam nga ni ngeen déglu tey ji ma wax ay meloom bu far ay mu loolu mu def leen dëgg la tey jàquloo mu sàggan gisuma xeeb xam nga su ni way yonel tu bi wax ni moo dàq sax ay xalam am tabaaraka te yaa ahsanal xaaliqiin xam nga ni iñaanu lu feñaagul du kuy am di nay ki du kuy suxul jëmbatu di rakk bakkanam sunnati bi xaram di li sëtu bu dem ba bun naa demal xeeñtu sul dul sul na bal na tel mbal bul ca jam bu kenn tax nga juutal sa jàmbat yëgal ni bu juutoo bu jaabee du am reeni waa di la bawal di gi saa sagam mu nga ni fo bul tànki Makka bul manki jàkka nday fo kiraka sagam bëgg nga dem Abdu saxal ci ku woyof lool bul dem di rey lool bul waate maqaama kon doo ko saxal ku aw yoonu Tijaan du woote ku maqaama du woote ku wilaaya su doone ku xam fa bi du fo boppam it ñépp naw leen dugal tànk ci suuf ki ni buur ak ki dagal sama umu su way wii danoo bëgg ci yow kay xanaa dana way wenan way wu xallu doomi xadi njaay su way wii dafee bëgg ci yow kay xanaa dana way wenan way wu xallu doomi xadi njaay su way wii dafee bëgg ci yow kay xanaa yow kay xalaat dana lu way wena lu way wu xel dul xalaat xam nga ni su waykat ma na way ba xëy dal jihaadi ba ba caati way jaasi xotti pu xolam xam nga ni lu waykat yi way way dañuy tay baye sa jàng la day way ni xam yaay sa beto way nanu ba tay gis naa ni way dabul qaadi maye

الأفنان ويهيد أبو الخادم أيدنا ما يسفت لا إله إلا الله جسنان ويهيد abdu fa rabbul arsi yaa ajaban sey alxaaji abdul aziz si malik tortoora bi xalifa Cheikh Anta da baax a baax te mot sëriñ laa biiri nit ñi tey jëriñ dafa doy lool ba mel ni fëriñ ku baax taxul nga mel ni moom lu way kat yi way way tasaajat la day way di way day sabato way nañu ba tay gis naa ni way dabul qaadima yeeda daa farlatam yay sabato aco rek ñu dem dëgg la alxaaji abdul aziz si maalik tuubaak tiwaawan mboolo dar la ngay xalifa si nii nga mel ma tula yee ku man ba noppi dootul jéem ku wàcce ñay xam na gëléem ku am fasaa yab ko doral waykat yi way tani tay bay te saw ca di la day way di way ku koy jële yee lay lay la laawo gis naa di way wi dabul qaadi bay yee dana far kon dal baa rabbi sallim ala al mustafa ñu gëm ay waxam tagu tere ay jëfam waaw rabbi sallim alal mustafa ñu gëm abil aqid dëkk coroy ay jëfam sëñ Tuubaa yi bari dañoo bëgg ci njàng mii ngeen di jàng fii Serigne Moussa Alaaji Baara Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Abdoul Fatah euh, Serigne Abdoul Ahad Gueye tamit bëgg na ndax barab bi barabam la da ngeen bokkee dëkk Tiwaawan baayam séq njaboot Seydil Hadji Malick gépp lu rafet muy taalibeb cheikhul xaddim doo demee Tiwaawan tey fekk fa pencum Serigne Maru Bëggay fekk fa kër Cheikh Awa Balla fekk fa kër alxaaji euh, Serigne Basiru euh, kër Serigne pencum Serigne Basiru loolu day wane ni euh, ñoom gannaaw bañ doonee ay mbokk ba noppi dañoo bokk doon ay dëkkandoo bokk lépp ndax réew mi lii moo koy doxal ndax yaakaar naa ni mag ñi nekkuñu woon ñoo xam ni dañuy jël diine di ko xeexee déedéet ñoom li leen ñor mooy lu baax nit munta nekk day day saan بخدرة الله ولم يحدا سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على السواء dafa wax ni wirdu woo jël moo xam muy wirdu tijaan wala wirdu xaadir wala mu mën a doon tuddul boppam sax da nga àgg ci yàlla defe ko nañ ko diglee kon kii ab tarixa taxu woon taxu ko woon a jóg waaye li mu wax leer na lil Moustapha na waytumaa yi jaddidu sunnatuhul xarraway ni ahmadu euh, moom dafa wax ni euh, dafa ñëw ngir yeesal sunna sayduna muhammad kon képp ku nekk ci njub rek tey jaamu yàlla te bëgg yonent bi sëñ Tuubaa génnewu la ci njabootam